Euh, yaa Adama. Bougane Gueye Dany nee na Sonko bu génnee dix heures moom mu génn onze bu Sonko génnee onze heures mu génn douze heures démb Sonko génn na vingt trois heures moom mu génn minuit waaye Sonko woote na kañot wootewul kañot Sonko woote na stade wootewul stade. ñu waroon na woote nag. <laughs> ayca waaw gis nga Bougane hmm. émission bi passé am na lu ma waxoon ci moom. dinaa waxaat bis nga mbugaan duma ko wàcc tànk bàyyiwul Sonko. émission bii paase waxoon naa ci mbugaan dinaa la waxaat ci mbugaan gis nga mbugaan dama yaakaar deew wàññeeku soxnaam bi da ko da ko da ko traumatisé. dafa hmm. jaxase bopp bi. ah bon waaw bi dafa jaxase bopp bi te dama naan mbugaan dafa desee wér xam nga tax ma wax loolu. Hmm. Sonko du moromam. nee naa la bu sonko loo du tax mu nekk sonko su taqalikook sonko du tax xetu sonko sax buggul mbugaan mhm. xetu sonko buggul mbugaan soxlawul mbugaan gis nga mbugaan damaa bëgg fii dama bëgg nañ ma ko daggal joxal ma ko mbugaan damaa bëgg sonko du mësa doo mësa mel ni sonko ci àdduna nee naa la vérifier ñëw naa si yow seet si la bu dul 2021 2020 la seet si naa ko le 7 mars 2020 bu dul ñaari at yooyu benn benn la ci ñaari at yooyu benn la si am ma ñaanoon yàlla nag gis la wax la ñaari kàddu gis nga politique maa la koy dogul ci salaatul faatih su kaamil bu ma jege fi ma dóor ci sama loxo waan damay wax saa su ne sama kurus gii su ma ko wax téye rek mel ne téye naa kaamil maa ngi dogu ci sama kurus gi yow doo mus a am dara si àdduna ndax lu tax doo am dara ci àdduna sa xol moo la sonal sa xol moo lay tooñ. sonko mii ngay mbubboo bu génnee timis bu géeyee nga génn da nga nar a sonn te nar nga yàgg si yoon bi nag bay boo nga àpp ko waxuma sax deux mille cinquante waane deux mille quatre vingt na ko ko àpp yow ku nar a sonn ngay doon. parce que lu tax nga nar a sonn benn yow sonko la gën a set sonko la gën a ragal yàlla sonko lekkul alalu jàmbur tëddul si alalu ku dee lekkul riba yow nag dangaa boole lépp ëmb dajale. soo jógee di sonk sonko lu tànkal nit ñi woo say journaliste yow li nga amoon sa alal mi ngi rës da nga ñëkk sa alal mi ngi rës da ngaa ñëkk te munoo bàyyi da nga ñëkk te munoo bàyyi te gis nga nag daanu jël bu sedd moo gën daanu supp jaleñ bu metti te yow looloo nara nara dal bàyyil sonko ngir yàlla li laay war suul te sonko ku ko laar ren bu déwénee say mbokk yalwaanal la te yow looloo nara dal dafa am benn xale bu góor bu ma woo barki démb mbokku mbugaan la mm-hmm. bu ma woo ca mbugaan papaam naar la. Hmm. mbugaan mii papaam naar la papaam électricien la woon ca Mauritanie papam jaru ngay ree électricien la woon ca Mauritanie. Hmm. gis nga Sonko bàyyi ko tout tranquillement gis nga Sonko li ngay li ngay sonn yëpp ci Sonko bëgg lu mu lal nga laali ko yow doomu nit ñi gëmuñu la. doo wax lu nit ñi dugg si nopp nit ñi nit ñi nga nañ la seetaan def la genre théâtre kat di la seetaan di la reetaan di la kokkali xale yi di la dagg di la kokkali mais doo musa mel ni Sonko ci àdduna doo musa nduroog Sonko ci àdduna te sax politique bi ngay bi billaahi su ma doon yow dinaa lem sama basan dem tëdd nelaw naan sama attaay bi nga xam ne moom lañ la xamee ca Murtani nga naan sa attaay ak sa njar bu oyof bu sedd guy nga si féexal sa parce que sa xol bi li nga li sa xol bi yenu moom la antanul xol bi daf ci yenn lu lu xol bi antanul hmm. moom mënut a digérer moom gis nga Gaston yal na ko yàlla yërëm hmm. Gaston Mbengue yal na ko yal na xippee ji àjjana yi fi daw si nga waxoon nga waxoon nga teeloon ñoo bokk ci sénégalais bi ñu njëkkoonoo wax ay bureau si Gaston waaw euh, <laughs> dafa mel ni waxu Gaston sax yaa ko yeewoon ci réew mi moom da cee wax ñëpp di ci wax gis nga Gaston bi may gis feebaram di dem si moom hmm. fii laa jóge Nouakchott laa gisee feebaram ma ñëw fii vacances si jël fii taxi ba buntu kër Gaston dama ne du ma direct xaw ma këram mais damay dem kër Balla Gaye su ma demee kër Balla Gaye ñoo ñu toog ci buntu yooyu mbër mbëri ndaw yooyu nañu xam nañ ma mën a tegtal fu mu dëkk ma jël taxi dem ba kër Balla Gaye xam nga Balla Gaye soliwu ma boobu temps mi ngi dëkk fii ma dem kër Balla Gaye xale yu góor yi ñu ma la ko di comme ni ma ko yaakaar noonu la amee xale yu góor yi ma fekk ñoo ma tegtal ne ma boo demee quartier sàngam quartier sàngam ci Dakar këram foofu la nekk taxi bi ma duggoon wàccuma ko taxi bi dafa koon neeg man ba kër gason ma kay ñaanal mbeng yal na àllaaxira doon noflaayam yal na àjjana doon noflaayam mhm. gis nga Gaston mus na leen ko wax Gaston mu mus na ne opposition bi kenn bëggu ci Sonko mhm. nga Gaston wax na loolu mhm. te loolu mu wax noonu moo nekk ba fi ma toog di waxante yow moo tax Sonko lenn rek laa koy ñaan ci dundam képp ku muy fal na ko xam. Mm-hmm. képp ku muy fal na ko segg parce que di nga set mais dina am ñu tilim ñooy fal waxuma dafa fal ñu tilim nag. Mm-hmm. mais dina am ñenn ñu tilim ñoo xam ni ëllëg dañ lay wutal defet mm-hmm. parce que tàmm nañu jël. te soo xasee ba tàmm jël doo bàyyi fi jàmbur. te damaa bëgg sonko nguur gi ñu ñu sos na ay loxo yu set wecc te ni ma ko waxee woon sama vidéo ba passé chaque trois mois ku ñu fal ci bureau foo nekk poste boo nekk ñu contrôler la. Mhm. chaque trois mois nga def dévite ñu contrôler la xool lan nga liggéey lan nga def lan moo génn ci xaas bi ak lan moo dugg ci xaas bi su ñu defee loo rek mu ci seen nguur gi mais su fekkee dañ la fal nga bàyyi nit ki naan ko wutal ma nit sa sa dëkk ba nga nekk. Mhm. campagnal ma wutal ma ay mbooloo mooy indi sàcc. Mhm. bu kenn wutloo kenn mbooloo liggéey fayeeku te ku ñu fal. chaque trois mois nañu la contrôler ñu xool li nga liggéey baax na wala baaxul. Mm-hmm. su baaxee sant yàlla su baaxulee ñu jëlee la fu nga nekk. Mm-hmm. parce que moom loxoom dafa set te loxo yi set la bëgg comme moom. Mm-hmm. te ci groupe groupe boo gis dana am ay benn benn tànn ceeb. te mënoo ci génne nag li ko la koy mën a may nga xam ko nga dem ba liggéey ndoog ñoom. wante damay ñaan képp ku ñuy falati moo xam député la moo xam lu mu mën a doon. nañ la segg seetu la segg la seggaat la ñu doog lay fal. man hmm. loolu laa ñaan nguur gi. Bara li moom euh, Bara Dolly nga xam ne mooy député du peuple. ah borom livre rouge. Ah, gis nga Bara Dolly. Ah, ah, damaa bëggul sori ci ay mbiram. xam nga tax bëgguma sori si mbiram. Hmm. damaa rus sëñ Tuubaa. Hmm. njabootu sëñ Tuubaa lu ci taq rek damay rus a wax ci ñoom dara. waaye moom dinaa wax ci moom ndax la ma tax wax ci moom. dafa bëgg a jël sañ Touba jaxase kook sénégalais yi ay ku wooteel ñoom Sonko wooteel nga nangam ku wooteel ñoom Sonko trahir nga sañ Touba ku wax ni gis nga sañ Touba du yow rek yaay sëtam sëñ Touba ñun ñëpp ay sëtam lañu ñun ñëpp sëti sañ tuubaa lañu. Mm-hmm. te sa maam Baara dafa liggéey lu baax ci Sénégal dafa liggéey lu ñoŋ ci Sénégal bàyyi fi way wu rafet. tey ku jóg jubali Touba ndax sa jëmmi maam moo tax. Mhm. yow war nga bàyyi sa kàddu yoo xam ne kàddu jaxase la parce que jéem nga dugg si nguur gi ba sonn mayu ñu la buntu boo duggee léegi dangay ngay manigancé ku wooteel ñoom Sonko wooteel nga lii ku wooteel ñoom Sonko ba rus naa sax jaar ci tur wi. Hmm. en tant que sëtu sëñ Touba te yow da nga war a bàyyi di mbubboo fu ma toog sëtu sëñ Touba laa sëtu sëñ Touba yi ñu ngi fi du jeex du xaaj tam mbubboo wuñ ko. du fuñ taxaw ne sët sëñ Tuubaa laa hmm. ñun ñëpp ay sët sëñ Tuubaa te yàq rek moo ko tax a jóg te maa ngi ñaan ci suñu borom maa ngi ñaan ci barke maamam yàlla bu mu am nekk député yàlla bu mu nekk député yàlla bu kenn ku taxadikoo ak moom nekk député parce que gis nga gis nga yeekatu fitna hmm. warul nekk assemblée yeekatu fitna hmm. warul nekk assemblée te li ma gis fitna la yee di jaxase nguur gi ak sëñ Tuubaa nguur gi ak sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa wax dëgg yàlla li muy doon def def na ko yéen ñi ngeen xam nag ay njabootam ñi njabootam ñi nga xam ne ay benn benn ñoo xam ne yàq moo leen tax a jóg na nañu yàlla musal ci yéen ñi ngeen xam ne yàq moo leen tax a jóg mais bu ngeen toppoon wayu sëñ Touba ak démbi sëñ Touba du ngeen nekk di wax wax ci ñaaw ji mhm. waa wax ji muy wax nag ñaaw trop rus naa sax di jaar ci wax ji mu wax ci mhm. ñaaw trop waaw moo dab muy waaw eh,